alors élage bu bilaal la ñuy la ñuy tëjee mais laataa loolu laataa ñuy jàll ci la revue dañuy taxaw ci un point muy l'affaire Bah Diakhaté parce que euh, soxla nañu aussi sa sa sa impression par rapport euh, à ça euh, gis nañu ginnaaw kàddu yi mu yëkkati teg nañ ko loxo donc naka nga jàngatee mbir mi ak peut-être l'imam Ndaw bi nga xamante ni moom Bah Diakhaté comme ni nga ko waxee sànq ku ci nekk yaa ngi sànni sa sa moroom naan moom moo wax walla ci moom laa jële <laughs> waaw man li ma gis mooy ñoom dañu bëggoon divertir nit ñi rek moo tax ñu génne ay baajaxate yi seen ay wax yi ñuy wax ay yor naa lii yor naa lale te yoruñu dara gis nga réew mi euh, il faut ñu xam benn affaire ñu jàpp ne senegal léegi nit ñi dañoo yeewu mm-hmm. euh, sànq léegi euh, Mandela wax na ko da ngay dugg ci benn bureau léegi def na ko su dul noonu di demande benn papier joxuñu la ko waa ji génn jël téléphone am ne man de dama ñëwoon déposer benn affaire a ngi nii ma duggee fii dañ ñu sànni ko ci net bi ñëpp xam yow léegi lu bëri de sénégalais dañ koy ragal lu bëri affaire Jibi Njaay bii rek war naa yee nit ñi. Hmm. chef de protocol bu Ousmane Sonko. longo ak ki nga xam ne moom mooy. Euh, Antoine Antoine ñu xëy daal di koy sànni xeer mel na que seet ñu ci dara. Hmm. kon léegi Sénégal bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne dañoo jóg pour yàqu am na ñoo xam ne dañoo jóg pour defar. Hmm. te booy dañoo taxaw taxawaay yoo xam ne du ñu bàyyi kenn ci dara rawatina ñu nekk ci diaspora bi ak ñi nga xam ne ñu nekk ci biir réew mi. ndax bu njëkk bi dangay ngay wax nit mu la demal whatsapp léegi doo wax ak kenn ba mu la demal whatsapp parce que yu bëri xewi na ndax ñee dañ doon enregistré di la dugal léegi nag sénégalais yi seen bopp yeewu nañu réew mënuñu koo doxal ci 100 jours mënuñu ko doxal ci un an ñi nañ leen bàyyi ñu dem parce que ñu fi toogoon def nañ fi fukki at ak ñaar te doxul ñii ñu ngi soog a def ñaari at nañ leen bàyyi ñu weer ñaari weer nañ leen bàyyi ñu continuer te loolu nekkul loo xam ne dañ demande de nekkul ñaan ay loolu ay dañuy demandé ngeen bàyyi dañu continuer ñii dañuy continuer te kenn du leen ko demander parce que fu ñu jëm ak réew mi xam nañ ko lu leer laa la wax ñii duñu ay caaxaankat ay ay ay ay ay te ñu xam ne ñii eh, eh, eh, fële la ñu génne de. ENA ENA la ñu génne de école nationale Macky Sall jaarul foofu de géomètre la jaarul ENA il faut ñu xam ne ñii ay intellectuel dañoo xam dañ suuf boo xoolee Sonko xam na ne xelam li ci nekkoon droit la nekkoon Sonko droit la waroon def. mais dafa dem ba ci biir xam ne droit fees na mu daal di dugg. fi nga xam ne ah. waaw. xam na droit Sonko bu wax droit da yaakaar ne kii. moo ko bi ENA. Ah. dafa am master en droit moo tax mu def concours ENA. waaw mais loolu gandum juriste la. moom moom lay moom lay wax moom laa lay waxal loolu. moo tax bu mu ci impôt et domaine Sonko dama ko xam. ay fiscaliste Sonko nit ki ki jubam weesu na lii kii ba muy jub tey boobu nekkul ci état ba muy nekk ca Amadou Ba diriger li nga xam ne moom mooy impôt et domaine ci maanaam syndicat day kii Sonko moo yoroon kees ba ba ñu wooyee benn at si fay ko cinq cent mille ñu woo Kouthia naan Kouthia <laughs> yow dañu koy defal cent cinquante mille mun leen pourquoi ñu koy jox kii toll la cachet war a ngeen yëgal cachet Kouthia mu fekk cachet kële ku ko jub kon kuy jubal ci loo xam ne yow toogagoo bés boo toogee mu jub. kon Sonko yàgg na nekk sa waay de. Sonko dafa yàgg nekk sama nekk sama waay moo tax ma am ay tolof tolof nii. ndeysaan ndax ba ma génnee hôpital. Mhm. te ministre la ministre bi nga xam ne moo yoroon euh, Covid bi Diouf Sarr seet si ma ministre de la culture mu foon seet si wu ma. Mhm. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo nekkoon samay autorité seet suñu ma. kan moom moo téléphone Abou Bilal dama dégg ci presse bi léegi ne doon waaj ñëw pour seet la na yàlla may jàmm danaa la te boobu nekkul président. kii daal nañ xam ne ne xoolal lu leer laa leen wax bu yoon ngeen toog te noppi imam François Bodian mi nga xam ne moo nekk sa sa Bignona leeroon na imam François Bodian ba mu nekkee ci Bignona leeroon na yëpp paa bi nga xam ne moo jël bale bi jox ko Sonko jox ko Diomaye ne ko eh suñu ay dëkk lu mot quarante villages dañoo dugg xaw la génn jox la lii bale ba mu set kuy xeex nag yàlla ngay xeexal ndax yàlla moo fi teg Sonko cinquante quatre sénégalais ñoo ko ñoo ko votal waaye cinquante quatre sénégalais yooyu bu ñu génnoo sax di ko waaye benn ay yambar fanaanoo ñooy génn di ñu wax loo xam ne sa waay ñun duñ ko seetaan parce que dañu bëgg Sénégal defaru defar ñu xam suñu bopp gis suñu bopp gëm suñu bopp te gëm naa ne ñii dañu ñu jàppale incha allah bu soobee yàlla man daal ma leen bëgg xamal dara xaw ma baa jaxate xaw ma ki sàcc pa portable baa jaxate bàyyi portable baa jaxate na ko delloo. Mm. ndax mën na koo dimbali xëy na ci leneen. Mm. ndax ñoom si ñoom yi neen la ñoom ñoo nekkoon ca tribunal ba kon bu ñu roccee <laughs> téléphone ba papa baa jaxate tey instant bii nii nag pa maa ngi lay ñaan booy dem bu lu portable ndax boo demaatee mën na la ko def war ay mbokk jàppal ne ñaar ñoo mun a am réew ñu moom faw mu changé te ni koy changé mooy suñu bànneex bopp baykat yi man damay bay naa la ko xamal de. Mhm. <laughs> damay def daa def daara damay bay. daara damay dem daara jolof bay. damay bay mais Mandela sax wax na am wax ju am solo. Mm-hmm. waaw euh, bi ñuy distraire si waxu borom ñaari tur yi. boobu ñu ngi ñu ngi régler compte ñi nga xamante ne ñooy euh, baykat yi. Mm-hmm. waaw parce que bor bi yàgg na fii depuis ba deux mille vingt et un. Mm-hmm. ñu fay ko ren. si quarante et un milliards. donc loolu c' était un débat. effectivement bëgg ñoo fàtte encore ci affaire ay ay ay ay bu mu tudd presse bi nga xam ne dañu war a fay impôt yi. impôt yi li ko El Hadj Ndiaye waxee. na ñëpp di fay moom nee na fay na na ñëpp fay te na ko nag lu leer sañu toog ci télévision ñëpp du ko dégg na ñëpp fay ah, amul baale amul baale na ñëpp fay impôt mu normal pour ñu mën a ko parce que ñoo ñëpp bu ñu fay dañu mën a suqaliku nañu fay impôt yi xaw ma dañuy fay di ngeen fay moom di ngeen ko def da ngeen di fay par la force su ko defee nit ñi mën a nekk ci normal na ñëpp fay waaw xanaa ñu defal leen ko moratoire ba amul moratoire déedéet bu ko fi moratoire du fi moratoire parce que. sponsor buy dugal xaalis du moratoire. parce que lii tey sponsor buy du moratoire. lépp lay verse. waaw nañ ko waxtaanee ba jubóor ko bu dee kenn ku nekk nag bu dee un milliard la. nañu génn un milliard cinq cinq cent mille moratoire ko ci amul ah, xaar yow élage te déedéet jubal jubal jubal jubal ah, parce que sponsor bu joxe xaalis kenn du ko moratoire. waa bàyyi ñu moratoire. nañu fay El Hadj Ndiaye na bor bi fayu rek. mais mais mais sànq yaa ni yaa yaa ni boo boo amee boo bu bari. waaw dugalal tuuti. non ñooñu sàcc ñi laay wax. Ah, ñu sàcc yi. sàcc yi wax ñii dañoo amee bor. non ñii ñoom dañoo amee bor. te Macky da leen a nax. gis nga bor yi ñii nii ak bor yee. sa mais Macky baaloon na leen ko. waaye dama ne yooyu décret bi génnul dañ koy fay par la force di ngeen ko fay. Ah. dañ koy fay lu leer laa la wax. te naa la ci xamal dara dañ koy fay. par la poche mais leen waroon ñaanal njekk aussi. non non ñaanal njekk man damaa bokk ci yow ma leen ñaanal njekk man c'est sama yoon man réew mi moom ñaar kat dana ñaanal njekk bu ma ñaanal njekk ne ma dara. li dafa leer nee na moom fay na ba ñu ngi toog kon ñeneen lu tax duñ fay fay leen il faut naa ñi de. leer na naa ñi il faut payer. daal bu ñu ko bëggee defar na kenn ku nekk fa nga nekk jéem a góorgóorlu. bi ñu doon yéen a ngi nii tey da ngeen téere xëy te nekkuleen secteur public privé ngeen nekk. Mhm. tey daa daa am fan am. da ngeen bëgg tubal tubale moo tax ngeen teel a ñëw kon kay ñun ñëpp nañ tubal tubal rek benn yoon bu yàlla dafa ñu jàmm. looloo tax ma ñëwaat sax. en tout cas xëy nañ ba naan suñu café naan nañ café gu neex. jub jubal moo tax ma ñëw liggéey si. alo mi ngi noonu am na am na solo neuf heures passées de trente cinq minutes euh, c'était votre matinale mais dañ koy jeexale ak la revue euh, ànd ci ak El Hadji Abou Bilal mu ànd ak Lamine Sow son ami ñu daal ñuy dégtal la revue euh, ñu euh, dégtal ko eh, mbokk internet M4 TV xam naa ni namoon ngeen ñu mais ñoo leen rawoon ñëwaat nañu euh, ci xibaar yi chaque jour dañ leen indil actualité lépp loo xamante ni dafa xew ci réew mi ak biti réew dañ ko indi ak les rubriques yi nga xamante ni ñoom moo moom moo nar a am ci votre émission matinal sur la M4 TV fas yéene ak itam l'équipe choc de la matinale ànd ci ak Lamine et toute la coordination bi nga xamante ni mi ngi am ci suuf di jaajëfal képp koo xamante ni itam jàpp nga ci liggéey bi El Hadj Bilal ñu bàyyi la ak la revue nga ànd ak Lamine. waaw ñu ànd ak Lamine def la revue. waaw kon ñu dox daje incha allah ba ëllëg. incha allah ci même heure bi même fréquence bi ñëpp kenn bañ a manqué. yàlla defal ñu jàmm ñu fan bu gudd ak wér defal jàmm ci réew mi defal ko mboolem jullit. te di ñaanal tamit sëñ Abdou sëñ Abdou Mbacke bu bu bu bu Pastef yàlla ko yàlla defal jàmm. nit ñu baax waa kay. Ah. ñu ngi ko xam. ñu koy xaw ma ko. da nga dégg rek dama koy dégg rek. ñu ngi koy ziar bu oh, baax parce que démb naroon na fi ñëw. ku baax la. waaw waaw waaw mais dafa nekkoon ci ay tolof dina fi ñëw nag. incha na balaa ñu tabaski incha allah dina ñëw toog fii ci plateau bi. dafa ñun plateau bu saf sàpp. Ah, ndax waaw ndax ñu mel ni ñooñu. ah oh, ak sama turandoo sëñ Abib Si. ndeysaan ah sama nuroowaale yal na yàlla gudd fanam. amiin vraiment maa ngi koy ñaanal fan ah da ngeen niru Abbé Jean toj na toj na toj na pëba ngeen Jean toj na pëba ngeen yàlla ko yàlla defal jàmm may fan gudd ci barke yonte yàlla Yeesu Kirista borom Yeesu Kirista borom xel mu sell mi barke démb rek démb rek maa ngi ci benn communion <laughs> ba waa ji bëgg a jaawale sucré ak salé bëgg maa jox salé <laughs> ma ne ko sucré ma ndax boo ma salé du baax mais kon dañ koy salé <laughs> <laughs> non pon sucré ak salé fi amoon sucré ak salé salé beneen ba. ñoom ponge. <laughs> Ah, ah, ah. merci merci beaucoup mi ngi noonu Lamine euh, ñu euh, dugal une page euh, de publicité daal di ànd El Hadj Bilal ci la revue di leen jox daje suba incha allah même heure même fréquence sur la M4 TV jaa ngeen jëf.